batana kon nak li ñoo waxtane tay modi am ma yatasaaluun waaw e am ma yatasaaluun yatasaaluuna an innaba il azim waaw yatasaaluuna an innaba il azim dafa melna nak dégg ko baax na ndax kilifa it yërëm ko baax na te yàlla wax na ba dënnam tàng kon nag yërëm yàlla jot na waaw wax na ba dënnam tàng kon nag yërëm ko jot na waaw la dof ba waxoon ku ne naan ci yàlla ci yàlla mu ne yàlla na yàlla mucc faf ñaanal yàlla waaw waaw waaw